ñu xam ne lim leen teg mën nañ ko ndax bu dee ab baykat yàlla moo ko waxoon ci alquran al karim santaane asaka mooy gi nga xam ne moo wàcc ndox ñu jóge ci asamaan si ngeen bay ci loo xam ne boo ko sexee day sax suukar ak leneen loo xam ne boo ko sexee day wax xat mu bokk ci kéemaan suñu borom mu mel ne ci biir man-man yi nit ñi man mën nañoo fexe ba génn am ndox ci suuf mën a fexe ba dawal ak dex muy daw waaye nag suñu borom yeeyaat lan ci ne leen bu ngeen wutee am ndox tam nga sotti ko ci kaw suuf si suñu borom mi leen sant ngeen gën a asaka mooy ki nga xam ne moom moo koy ndax la ngeen cay man mooy sànni tooba sànni ko ci tooba bi rek xamu leen daa jaaxaar xamu leen da tëdd wet xamu dafa defee ni waaye moom la ca war mooy e, def ko ci suuf rek bàyyi ko ak loxoom la ca des moo ko cay def kon saxal gën koy saxal yey na ci ñëpp ci ne moom rek mooy ki nga xam ne am na doom ci loxoom la nekk te kattanam ak sañ-sañam yi mu fenn tax na bu santaanee waras na caa gaaw jëm mu mel ne nag aaya bi ma jàng léegi mooy huwa alladi anzala min alsamaai maan lakum minhu sharabun wa minhu shajarun fihi tuzimun yumbitu lakum bihi zara wa zaytuna wa nakhila wa alanab wa min kulli althamarat inna fi dalika la aayatan li qawmin yatafakkarun tafakkur boobu yi nag cheikhul xadim mi nga xam ne moom la ñu yaakaar leeral nañu tafakkur mooy lan boo demee ci téereem bi nga xam ne moo di Masaalikul Jinaan ci di ko tàmbalee bayitu ñeenti téeméer ak juróom-ñeent ma nga cay wax naan di xalaat suñu borom ak xéewal yi mu la defal ak li ñu la mënoon teg te tegulu ko bu dee gànjar am na bu dee gànjar la mooy gànjar gi gën a kawe ci gànjar gi ndax kat toog di xalam bi la suñu borom defal ba bu la santee nga xam ne sañ na laa sant nee na dara wutalewu ko ak seetu boo xam ne da koo teg ci sa kër bala ngaa génn xool na nga ca ba xam nga génn wala déet teg ca ne xalaat xalaat xéewali ko suñu borom defal bu santee xam ne sañ na day wan nit ki yu bari yu mu war a def di ko wane tam yu baree yoo xam ne da ko war a moytu ndax nee na tafakkur mooy melokaan ku bëgg a àgg ci yàlla dellu ne jële na ci ñu ñu mu te ñoo kenn du leen gën a mu ne toog di xalaat xéewal li la suñu borom defal moo gën jaamu yàlla jamono jëpp te anut xalaat li sa borom suñu borom defal am benn ay bu jiitu boo xam ne Sidna Ibrahima moo doon naan yàlla ne ko fii nga ma yabal li ma fi wooloo nit ñi barab la boo xam ne amul mbay amul dara aaya boobee lam daanoo mooy na nga leen defal ci suuf si loo xam ne dañ koy xéwlu ba bu ëllëgee si biir ñu mën laa sant cant boobu itam Sëriñ Tuubaa mi ngi wax ci Masaalikul Jinaan ci li ko tàmbalee ci bayit bayitu junni ak ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak ñaar naan dëgg-dëgg sant yàlla nag mooy wan yàlla ne ko li ma defal xam naa ko tekki wër na yàlla da ko gisut mel ni yow te jàppandeeku leen nam la jàppandee mu tënk ko foofu